auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim euh, mbokk Sénégal yëpp euh, nuyu na leen ziar leen di leen masawu ci dégg-déggu jamono yi nga xamante ne moom moo xew ci dëkk bi ñëpp di ko dégg euh, wax dëgg yàlla jamono ji ku nekk xam na ni presse bi li xew ci département bi nga xamante ne man maa fay parlementaire bu bokk ci liste départementale bi ak honorable député Fatou Gueye ñëpp xam nañ ni c'est ce qui fait le chou gras de la presse muy l'affaire Aziz euh, Abdou Aziz Ba di Aziz Dabala di suñu doom itam ñu am ci naqar lool ndax ñoo bokk dëkk ginnaaw raay euh, yaayam bokk ci suñuy ñoñ euh, ñu koy jaale jaale waa Pikine département bi yëpp waaye ni ki moom ni ki réew mi foo ci toll wàllum insécurité actuellement ci nangu sa alal ci lu la neexul jël ko wala këf sa portable wala këf sa perruque wala fekk la ci sa biir kër nangu sa yëf ci force mu ànd ak mais armée ñu koy wax vol à main armée wala association de malfaiteurs wala yu mel noonu bari na te ñëpp gis nañ ko lii nag li tax ñu koy saluer mooy euh, dafa am importance que commission bi nga xamante ne moo yoolu wàllum sécurité ak defence euh, réunir tey euh, man ñu invité ma ci ci koo xamante ne dama bokk ci euh, kémi département de Pikine te lu mel nii xew a fa may doog a jóge Touba nii mais vraiment bugg ñëw aussi teew pour euh, fekke ko déglu li nga xamante ne mooy li ñu fi waxtaan joxe si itam sama xalaat yàlla def na ni itam bi mu ñëwee indil apporteel naa leen li nga xam ne loolu laa am comme information ñu war ko sàmbar saytu ko jël ko dajale ñi nga xamante ne man ci sama xalaat ñoo war a daje mooy le ministre de l'intérieur le ministre de la justice le ministre des forces armées ak ñi nga xamante ne ñëpp ñoo war a jël ay ndogal ci wàllum insécurité bi am lii nag comme ni niñ ko waxee ñun ci suñu biir région du lu bees lu fi yàgg la daf fi bëgg a sax nag parce que bu ñu demee ci yenn dëkk yi dañuy dem ba nga xamante ne insécurité boo demoon ci dëkk yi ñu frontière rek duñu tudd ay dëkk bëccëg boo fay dox nit day bojji paaka teg la ko ci bopp ni la jox ma li nga yore nga dem bu ñu ci teelu la jóg nag dañuy dem ba Sénégal defe ni alali jàmbur nga nangu ko di ko jariñoo bëccëg parce que faat doomu aadama ba pare wëlbati ko jël say dàll dugg ci oto tranquillement bàyyi fa néew ba dem tuubaa di màggal sëriñ bi wootewul loolu te dañuy dem ba mu yàgg mu mel ni dafa war a nekk lu dagan maanaam ñi ko def amuñu sax li italien yi naan conscience sport ko amuñu conscience bu salte que yi ñoom def nañ lu toll noonu ñaari doomu aadama la ñu faat mais dañ cee boole ak jël seen alal dem màggali Tuuba loolu nag bu fekkente ne ñun ñi nga xamante ne assemblée moo ñu fal Sénégal ñoo ñu fal ñu ñëw fii nekk ay député de la République du Sénégal kàddu gi bàyyeekoowul fii ci saa si wax ak réew mi wax ni le pays est en danger te bañ ko waree wax yàgg na wax naa leen ko sànq day mel ni fayir nañ suñu mission mais heureusement yàlla baax na wax nañu pour rencontrer ñi nga xamante ni ñoo fi nekk wax leen ni leen lii yàgg nañ koo waxtaane mais décision bi ñu ci jël tey tey lañ ko ci jël ñuy ñaan le président de la république le mini le premier ministre le ministre des forces armées le ministre de l'intérieur le procureur de la république mu def liggéeyam ci li war na justice def liggéeyam waxuma la ñi ci bokk waxuma la ñi ko xalaat mais ñi ko xeltu rek nañu leen faj te ñu jóge ci liggéey pour que Sénégal am sécurité parce que yéen ñi ñëpp yéen a ngi nii di wax ah, seen caméra yeeg wax leen ci loolu dañ leen di sàcc. da gis koo xam ne li mu am mi ngi koy dajale pour ubbi situ boppam jënd ñaari caméra ñetti téléphone dajale nangam suba ñu sàcc ko ki ko sàcc jaay ko fii ci Colobane wala mu jaay ko fële ca marché Thiaroye ca ca ca ca ca Liba wala mu dem Kër Massar jaay ko wala mu dem ba Touba jaay ko nit ki nga xamante ni rek mooy jënd téléphone buy jar 1 million ci 75000 police daf koo war a jëli ci càcc gi la bokk parce que téléphone u Aziz Dabala nee nañ fii lañ ko jaayee. téléphone waali ne nañu réseau ba lañ ko jaayee ca ñoo ñu ko jën dañ leen war a jëli indi leen foofu la jubal am réew di commencé jub jubal jubbanti bi nga xamante ne moom la le président de la république ba excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye woote fii lañ ko war a commencé ku ci bokk ñu jël la nga bokk ak ñii même peine ku sàcc buñ la jàppee boo nee fii lañ ko jaayee yaa ki nga ko jaay ngeen bokk même peine parce que mënuloo da ngay dégg fii toujours ku dajale ba mu bari ñu sàcc ko jaay ko ci benn lii ñu jaayaat ko keneen di ko takk di la romb te doo xam parce que fii amul marque et modèle déposé donc il faut que ñu commencer man damay defee ne jàpp ni balaa dëkk balaa neex dëggantaan njaay ba neex ba correct mel ni Rwanda day am li nga xamante ne mooy euh, diplomatie mais avec un peu dictature il faut mettre de l'ordre dans ce pays ku ko fi def nag. ñun ñi ni la way da nga commencé def dikk mais il faut mu xaw a saf tuuti bala mu ne nux nux dafa war ni war war parce que dëkk bii mi ngi dem dans la dérive te dérive bi muy dem ñun ñoo ko war a mën a dindi ñoo ci war a d'accord ñun waa assemblée nationale bàyyi politique politicienne bi lu kenn jël ñu commencé eh, wax te fekk na teguñu ko fenn ñii ñu dénk suñu réew mi am ci ñoom yaakaar nañ commencé ci ñetti ji yooyu ñu def ñu commencé ci dindi li nga xamante ni mooy insécurité bi am dans la population il faut que la population vive tranquillement à l'aise da ngay dem Rwanda tu as ton téléphone tu marches tranquillement fii boo fi doon caaj snap léegi ci mbedd mi ñu ko fi téléphone bi jaay ko ci sa wet te doo ci mën dara kon ñoo ngi ñaan le président de la république mu jël ay décision ferme pour lii mu def na def sax bu ko neexee li ñuy wax un peu de dictature parce que c'est bon c'est pour redresser le pays mettre ko dans les rampes de la vraie vraie vrai vraie émergence parce que une émergence ne peut pas se construire sans la sécurité il faudra avoir de la sécurité donc ñun lii nga xamante ne xew na fii ci assemblée ñu bugg mu génn ci mbedd mi mais bu ciy génn itam na nekk décision boo xamante ni nous parlementaires avons pris la décision d'accompagner le ministre de la justice le ministre de l'intérieur le gouvernement du Sénégal vraiment la sécurité règne au pays de la teranga ñu defaraat li ñuy wax waruwaay yi fi nekk ñu fexe ba mbooleem ku fiy war waruwaay ñu xam numéro ba xam fu ñu ko immatriculé fexe ba nit ñi commencé di dawal sax yenn waruwaay yu ndaw yi di am des permis yoo xamante ne dañ leen di immatriculé fii ci dëkk bi décole décolle délocaliser yenn sites yi nga xamante ne délinquance juvénile lay indi ci dëkk bi bari na fi xam ngeen ko duñ ko tudd pont yi te tout y a des y donc nañu fexe ba li nga xamante ne moo xew ci réew mi vraiment ñu tekki suñu loxo ñun de man de maam jaara faam dama pare parce que man fi ma dëkk yëpp sécurité laa fa xam mooy fa nga xamante ni mooy bitim réew mais man lii fi mu xewee falaat dëkk xam naa la fay xew te man musuma ragal doigté du doigt li nga xamante ne mooy xew dans la banlieue moi je les connais je suis né avec eux je benn nit benn nit bu siiw dëkk biir ginnaaw raay noor toxu jot toxuwuma Aziz mi dañ koo dàq ba rey ko ci fa dëkk dañ koo dàq ba rey daa daw ba sonn dañ koo dàq ba rey man ci biir laa dëkk bu ñuy daas maa ngi fekkee bu ñuy jaay fi laa toog du ma jóg am na fa ay ministre bañ leen nommé ca gannaaw suba ga dañoo daw am na fa ay député ba ñu nekkee député dañoo daw parce que xam nañ ne sécurité bi sécurité bi dans la banlieue dañu yàgg a seet ak moom saa nag c' est depuis Mathusalem depuis Senghor depuis Abdou Diouf depuis Abdoulaye Wade depuis Macky Sall donc on veut que ça soit résolu loolu moo waral yëkkati nañ suñu kàddu ba tàyyi nag fii ci assemblée ci lu jiitu suñu mandat yépp dañ ko topp di wax may leen ñu ay commissariat lu jeex commissariat bu fekkente ni commissariat ba bam daj benn L200 la am. commissariat ba ba mu daj benn L200 la am commissaire ba voiture personnelle mu lay dawul amul voiture au moment où tu nommes un DG tu lui donnes cinquante voitures c'est pas juste il faudra mettre les moyens à la gendarmerie il faudra mettre les moyens à la police pour que la police puisse faire son travail tranquillement et honnêtement mais police yi yenn saa yi essence sax duñ ko am pour def déplacement c'est pas juste man c'est ce que je déplore il faudra mettre les moyens te aussi fair faire un chamboulement am na ñoo xamante ne fu ñu nekk ba def fa 10 ans ñu suppi leen rek parce que en général dañuy xam fii dañuy xam réseau yëpp ñoom dañ collaborer waaw man moom li may wax ragaluma ko tey ak suba yëpp man lu ma mës a wax ñeme naa ko engagé nu ñu defal ñu li ñu bëgg. moo ñu defal ñu sécurité parce que ñun ñëpp suñu bakkani ci xottu gerte lañ nekk man fii ma lay wax nii ginnaaw raay gii ñuy jàpp di xëy di jàpp tey boo demee dëkk ba yëpp a nga fees ak ay ak ay l yu taxaw ca mbedd ma bu ñu ko defoon bu yàgg xale yi du ñu mel nii man la commissaire ba ma connaît très bien acha xeex sax bu ñu ko defee ma woo téléphone ni ko ñu ngi xeex ci mbedd mi de kaay jël si leen bu ma gisee fukki nit yu dajaloo ñu ni fekk këf nañ përik man maay woo commissaire ba ni ko bërëb sàngam point la ña nga fa dajaloo di këf ay përik ak di jaay yàmba nañu ko bàyyi nañu ko bàyyi nañu may nit ñi seen jàmm ñu nekk ci jàmm lool la assemblée bi wax loolu la gouvernement bi wax loolu la institution yëpp wax man maa ngi leen di gërëm di gërëm monsieur le président di gërëm bu baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ne euh, mooy mon confrère moo frère moo nami Malick Kébé mi nga xamante ne il est il a été à l'origine de cette réunion merci beaucoup président yef ci invitation bi.